jërëjëf président Khalifa Sall mbokk yi asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp presse bi fi teew leader yi ñu bokkal taamu euh, sénégalais yi ñuy seetaan ak fi ñu mun nekk di tàmbale sama kàddu ci jaajëfal Euh, son mandataire national M. pétier Fall ligue liggéey bi le na diis na te li il a su garder le moral et le mental qu'il faut en tant que bon soldat pour continuer le te dara perturbé wu ko ba tey mu dem def li mu war a def def ko nag avec rigueur ba yàlla ci lii mu ci wane lii nag mooy yeewi askan wi ku yaakaar ni mën nga atteindre yeewi askan wi ci ay attaque ay complot ay manœuvre yoo xam ne day jóge fu ne nag ba foo defe naa da nax sa bopp lii Cheikh Tidiane ñoom di wax ni ku xamul luy laytaayu yeewi askan wi di lot ci ay pexe yoo ko nasaxale waaye boo moytu yow sa bopp yeewi askan wi c'est d'abord un te nag adversaire yi bu ñu féete nag laa wax ne adversaire yi sori rek la mooy léegi xëy suba moom doon jot ba góor jot di sos di xool nu ñu defee ne dañoo bëgg a féewale Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko wala Déthié Fall ak Cheikh Tidiane Youm wala Ousmane Sonko ak suñu sëriñ Mansour euh, euh, Mansour Sy Djamil yooyu ñu def ñoo def reetaan waaye loolu mooy pexe bu jeex ki ci noonu dem nañu ba xam-xam amatul. pexe amatul wër bi sos suba ak ngoon moo leen dese waaye yeewi askan bi li ko lal ak li ko téye ku foog ni caaxaan dina ko fi dindi da nax sa bopp kon ñu dellu sant yàlla ñaari ñaareel bi mooy di ñaawlu di naqarlu taxawaayu ministère de l'intérieur le nouveau défenseur d'une certaine société civile ministère de l'intérieur lii dafa firndeel ni caaxaan lañ fi nekkee ndax koo xam ne nga def na contrôle juridique ba jël liste Dakar ne dañoo teg na ay góor waaye sa contrôle juridique mayu la nga gis ni liste nationale benn benn bokk yaakaar dañoo teg na ay jigéen kon li mu firnde liste benn bokk yaakaar kenn contrôlé wu ko. ba pare ñu bëgg ñu jox ñu jël leen au sérieux ku fi critiquer administration ñu ne waaw moom nii moom naa dafa bëgg a yee fitna foog ngeen ni lii jaar na ñoom xanaa dañoo gumba léegi nu ñu mënee team liste ñaari jigéen ñu tegle leen quarante troisième ak quarante quatrième ñu ne gisuñu ko te acharné wu ci listu Dakar deux poids deux mesures yooyu nit ñi bëgg ñu continuer di ko nangu ci réew mi bu dul woon tey vigilance su Déthié dem jël temps xool man bi moom wooyee wax ma ko ba ak Khalifa dama ko ne est-ce que yi du góor wala may nga du góor ndax loolu mënu am léegi ah nañu ay góor yoo yor jigéen suñu jigéen wala jigéen yor turu góor mu ne ma xaaral maa ngi maa ngi jël dossier individuel yi pour bu dire que du lii mënatuñ ko wëlbati parce que boobu ñoom xamuñu moom li mu doon li mu doon xool lan la mu ne xaaral yu may jox dossier individuel bi mu jëlee dossier individuel ba jël référence xam nga bu ñu nee Maymuna Roqee Ndaw fille de Maymuna Njaay fille de kooku moom amatul lu ñuy labla kon ñii sérieux wu dañuy tappale dañuy jël liste Benno Bokk Yaakaar jàllale ko d'office daal di acharné wu ci list nag opposition di xool ban virgule moo moo tax keroog wax naa ko administration bokk na ci ñett yi ma lim keroog nekk suñu moytu ñooy taal parce que nit ñi mën nañu continuer di subir comme ça lu neex Macky Sall neex na rek amul loi amul règlement loolu du yoon ñetteel bi nag mooy lii lan la firnde li mu firnde mooy Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na mënul am liste nationale suñu tataa mi ni borom xam-xam yu bëri ak tegal ku rafet waaye nag dafa natt yàlla dafa nattu élection bu mu jublu rek moom day def xalangu ba mbëkk suuf lay def tataa mi ni doo campagne bàyyi bàyyi ba beneen loolu te gisuma lu ko mun a on accélère on accélère rek mi ngi ñëw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

bii ci liste nationale mënoon am liste nationale 53 députés yi bàyyi bàyyi ba beneen loolu na leer waaye nag ba léegi dàqul beneen bi mooy parrainage dañ cee am benn bu ëpp loolu yoon da cee wax lu leer jarul sax ñuy wax jurisprudence constitutionnelle parce que la loi n'est même pas interprétable xam nga fu loi leer kenn du interpréter dañ ci am benn bu ëpp tataami bi wax nako ko nee dañ dañ leen bëggoon won sax motax ñu yokk ci benn moom xam ne su doon loolu dañ ci yokk téeméer wala junni waaye dañ ci yokk benn daf leen rëcc looloy dëgg kon conseil constitutionnel liste nationale kenn waxatu ko l' ensemble des listes de Benno Bokk Yaakaar la ñu wax ils ont un parrain de plus ils ne peuvent pas compétir lii nag mooy dëgg ji kon dafa am loo xam ne nag yéene la boroma ci mu mujj suux ñoom seen yéene bi ñu amoon jubal ko ci waxuma la rek yéen askan waaye opposition bi yëpp ñoom ñoo ci mujj suux Sénégalais yëpp nag dañuy waxal réew mi ñun ñoo ko bokk réew pour mu dox il faut que li ñu tëral ne lii mooy charte bi